asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di sàkku si yéen ngeen ñaanal ñu jàmm incha allah di jéggalu nag si gëj a déggante bi ak gëj a dugal vidéo yi nekkoon ci ay yitte rek ndax jot moo amut tey nag euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi fàttali rek nag pour ñu aboneegul ñu abonné. ngir mën a jot yeneen njëriñ yi ñëw incha allah ñi nga xam ne abonné nañ nag ñu ngi leen di ñaanal di leen gërëm di leen sant bu baax te gis nañ nu ñuy jàppee ci liggéey bi di partager di ñaan nag mu gën a yokk ñi partage vidéo yi ci réseaux sociaux yépp incha allah ngir ñëpp jot si ngir mën ci jëriñu bu baax a baax a baax tey nag ñu ngi leen di jox secret bu am solo lool luñ am njëriñ ci wàllu ubbeeku ku tëjoo tëjoo tëjoo ba mënoo am dara loo laal mu dëgër foo dugg mu yàq lu la nit jox sax boo ko téyee du yàgg sa loxo muy nga perte ko incha allah dawal nga def lii da ngay bind bismillahi rahmaani rahim bind suratul xaaria sept fois nga bind xaatim bi góom ni ñu ko bindee nii incha allah nga ut suufu xorondom nga ut ci lu yem nga def ko ci saafara bi boo ko ci defee nag nga fanaanal ko ñaari fan bul ko laal boo ko fanaanalee ñaari fan bañ koo laal après nga commencé di si sangu boo si sangooyee vingt et un jours incha allah tëju boo mënoon a tëju na dañ incha allah say mbir dana ubbeeku nga commencé am am yomb la si kàttanu yàlla tey lii lañ indi woon wasalaamaaleykum